Come on.

ñu mën a ak mom ngir waxtaane ay jaar-jaaram Adja Fatou Kassé nag reporter bu mag bu nekkoon Sénégal ñu alasan doon wax Alassane kutu Alou moom moo ko la voix d'or du kon kooku moy ki nga xam ni moom lañ leen euh, indil tey ñu ak mom waxtaan kon aja duñu def rek lu dul

Eh, di wax dal pour ma wax len samay jaar-jaar ci bima nekké xalé ma nekkee ma tok eh, fa nak ma di len ci sante bu baax di rafet luy nak sen ñew eh, di contane te ci ci ni ngeen ma tamo ba déplacé jóge ñew fi ngir yalla ak sama jëm kon ma ngi len di sante bu baax samay jaar-jaar nak macha allah mën naa ko nettali bu baax ndax bi ma yàlla dogalee ma dugg ci aar ak léegi yaakaar naa ni mat na lu mat juróom fukki at ak lu topp ndax bi ma laataan dugg cercle de la jeunesse damaa nekkoon ak samay mag ca koñ ba boobu ay xale yu ndaw la nu man mii di xale bu jigéen bu ndaw en 1956 57 ku fa am jëkkër noonu ñu daan wax kenn booba kenn xew xewiwul buñ la boo masaan am jëkkër ba yàlla dogal ñu jox la sa jëkkër ñi di la kenn ci yooyu laa daan yëngutu ba yàlla dogal cercle de la jeunesse seet si ma ñi dégg ni man damay woy ñëw seet si ma bi ñëwee seet si ma itam muy abissar Felicia Sar, Sarr wax Adja Louis Diaw ma demba job ñi ñew set ci ma man len man kat dama am kilifa da ngeen di dem ba benen sama papa biñu ko defé ñoo ma demba job yalla na yalla wayeful suuf ci kawam àndandoog délégation ñëw nag ma ñu waxtaan ak sama papa sama papa len yen may sen bay kon bu ngeen soxla sen digeen ah du len jafé li moma dugal ci cercle de la jeunesse muy 1958 57 58 may nek cercle genn fa ñi way fa kuy lal ma demba ak bale yu bare ak lay sama lay aram ndela waré mbay tukal senati nay nar way njàngaan mbayaan mbay mbay eh, bale mbay la woon ak woy yu bare bul ma miin yàlla dogal ñu nekk noonu bu may nekk bi may dugg cercle booba sax mbool sekk ak Demba Jee ñoom bokk guñu cercle bi ma jëkkee woy taxaw ci seen bi woy Maas Jóob ak ku ñuy wax Birahim Jëng alaaj Birahim Jëng bu asalem ak beneen xale ñoma doon teggal may way ginnaaw gi la ñom bool ñew bi mbool gañu man bima baye la demba je ñom di ñew waye fa tubaarkàlla ma nek fa ak samay mak nek fa ak samay rak nek fa ak ñoo ma ni maa nun sunu ar, dañu ko doon doxal ci ngor ak bëgg-bëgg te itam bëgg-bëgg bi mo doon nun nan ko def rek muy honneur ci ñun mu neex ñu rek ñu def ko waaye boobu xaalis taxuloo ñu di ko def aaru tey nag tey ku ne gis na xale yi léegi ni ñuy def ci aar bi kon ñun bi ñu nekkee cercle di di def di théâtre lii lañ fa nekkee woon ànd nekk benn di fo di ree di dàq waaye nag yàlla suturaal ma ci ba nekk naa fa di ma fa jógee fu ñu ma sën a présenté rek man ñoo koy gañe ba yàlla dogal tey ñu def ñu hors concours ba cercle nekk hors concours ba léegi ba fii nu toog cercle mi ngi dund waaye yaakaar naa ni cercle bi ak bii tey ça fait deux kon dañuy sant yàlla bu baax tey suñuy sët ñoo ko yore suñuy sët laa wax de suñuy sët ñoo nekk cercle ndax ay xale rek ñoo fa nekk waaye nag ba tey jeexit jaa fa ba tey tur waa nga fa ba tey la fa nekkoon ma nga fa yan réew nga ànd ak cercle def ko. man nag yàlla dafa dogal bi ma laataan dem ci benn réew ci cercle bàyyi naa cercle ndax booba samay kilifa dañ ma ni xam nga nun ay ñeeño lañu xam nga booba mag ñi yeewooguñu comme nii tey booba ay 1960 laa bàyyi ñi may ma jëkkër ma sëyi Ndakaaru waaye li ma dox ci li ma def ci cercle. ba tey mi ngi fi gàtt na mais gudd na ba tey mi ngi ñu ngi koy ñu ngi koy fàttaliku ma bàyyi bi ma bàyyee itam cercle di dox xale di voyager dem ak ñëw waaye nag bi ma nekkee cercle Sénégal moom fu ñu far a dem rek Sénégal rek dem naa fa fu ñu far a dem ci Sénégal dem naa fa bi ñu defee hors concours cercle ci lañ daan tukki waaye bi ñu daan def ay coupe booba fu ñu mësaan a dem rek di di di wuti coupe rek muy biir Kébémer muy biir euh, Louga muy dakaar muy dëkk bu mu mën a doon te ñu di fa fina def di fa def di fa def concours rek wala noo ñibbisi rek indiwaale coupe bi bi ma bàyyee nag yàlla dafa dogal ma continuer di sey waaye ba tey cercle la ngi taxaw ma jóge fa nag nekk Louga bi yàlla dogalee ma sey ba yàlla dogal sama sëy ma tàggoog sama jëkkër ñëw Dakar ñëw siwaat Louga euh, ñi jël siwaat ma

bi ma ci nekkee ba fii nu toog am na jeexit. loolu sax moo yéeme ndax euh, sànq da nga wax ni 1957 58 ci ngi ci dugg 1960 nga arrêté ñaar ñetti at gàtt na lool ak fi sa tur àgg yëpp ndax ku la dégg da yaakaar ni def nga carrière bu rëy bu gudd bu am solo ci aar bi lan moo waral loolu. xam nga lu mën a doon te amuloo ci bëgg-bëgg amuloo ci cofeel ba mu jaral mu jaral sa sa lepp do ci am ndam xam nga bari nañu jaar cercle ñepp genn nañu fi ma jaar ci cercle Daaru Mbay jaar na fa keneen jaar na fa fatala ndjay jaar na fa sama keneen ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lañu fa am man aw ma ko fa waaye yaakar naa ni eh, fa sama tour ak itam defe ni ñoom itam ci sen ci cercle la sen sen tur agu fa ndax bo dégg ñaan Fatou kasse di jambour mom ken rek la muy man ma way kuy lal ma dem ba keneen ku ko way tam ci man nga ko déggee. kuy lal ma dem ba sabar gàcce ndaa yaa dem kuy lal ndaa ndaa kuy lal sama do je salaam. ñi daan ñun def ñu daan jaral ñi dem di séti mag ñi ñi di jox ay way bu ñu joxé way ñi ñëw def diko def répétition diko répété ku melni ma dem bu Diop tubaarkalla yal na yalla way far suuf ci kawam fu cercle ag tay ci ar bu am mana bo xamanteni bi kenn duko faté gannaaw yàlla alaaji Mass Diop la ndax bo ñëwee ba jox ko sa ba fent ba jox ko moo koy créé dugal ci ndax kuy laal ma dem ba rek lañu joxoon nu way ko bi ñu ñëwee ba way ko ba nga xamante bi def nañ ci benn benn internet ñu jëlaat ko modifiaat ko dolli ko waaye dolliwaat ko dolliwaat ko ba mu yaatu loolu lépp maas la def bale laay def bale jara bari na bale yu ñu def def ay internet yoo xamante ni bii ba tubaarkàlla mi ngi fi des bul ma min ba fatte ma yàlla yaana bi man mako way woy ko ak ku wax khadijouf ak kat sambu ñoñu ñoom itam kenn du cercle te tuddu len ku ci melni Diaw jabari mas Diop la won kenn du tudd cercle te tuddloo ko won su koy ne sa jabari mas jabari ponce boj ma nga sanc ba moom itam kenn du tudd cercle bu jekk ba te len ki lay wax muy abissar ak felicia sar magam kenn du tudd cercle ci Louga ca cercle bu njëkk ba te boole woo leen ca ñooñu ñoo ma magoon presque tuuti mais dama daan ànd ak ñoom ñu ne ci sama ginnaaw waaye dañoo demoon ba cercle ñun ñëpp dañoo mën a way ndax am na bis ñu dem dakaar booba palais di théâtre di palais moo am booba Sorano amagul théâtre di pale booba di wax yéeg yéen juddoogu leen euh, ñu dem tase groupe yi euh, da taseeg euh, troupe bu séeréer bi waaye Abdou Mama Diouf benn moom itam benn artiste la woon bu mag yoroon troupe comme ñun ñu takk sama baat ma woy woy mënu maa woy keroog Khady Diouf euh, Khady ma lay wax moo woy sama woy sama woy bi bi ñu sama baat ma yuuxu woy benn yoon mënut maa dem Khady Diouf daal di roof woy xale yi ko ma ànd ak nag di di ci fecc ba bale bi jeex uh, waxtu barkal la waaye booba métti woon na trop ndax ginnaaw gi am naa ci feebar yu métti métti waaye nag waa cercle taxaw ma nag ndeysaan booba sëriñ sëriñ kii kunta booba mi ngi dund maraab kunta ñu yóbbu ma foofu yóbbu ma ci beneen dëkk dañ ma caa dañ dama caa dañ ma caa dama caa sonnoon waaye ginnaaw gi rek nag ñu faj ma ba mu wér macha allah. ni continuer nag ginnaaw gi daal bi ma amee jëkkër laa bàyyi saret te woy doon ma ko fenn man samay maam dañuy tëgg ay bala mañ si lañu sama yaay da daan létt ñun loolu lañu xamoon waaye man rek maa ci xëyoon xëy rek di woy ba na nag woy yooyu moo ma topp ba léegi ba fii nu toog ba fii nu koy waxee woy yooyu ma topp léeg ma dem ci xew xale yi di ma cokkaas ci kuy laal maa dem ba eh, xam nga kon artiste du màggat waaye may sant yàlla nag bu baax a baax ndax li ma sant yàlla mooy aw ma ci benn benn góomu gannaaw moo ci jaar rek macha allah rafet na ndax li ko rafetal mooy fii ma nekk tey Kébémer am naa fi ci sama ñeent fukki at ak nangam maa ngi koy bëgg am Kébémer aw ma noonu ci biir Kébémer ñëpp bëgg ma tubaarkàlla Kébémer yëpp bëgg ma samay mbokk bëgg ma ñi ma dëkkal bëgg ma te loolu lépp aar bi rek moo ma ko may kon maa ngi sant yàlla bu baax di santi nag sama borom kër bi ma fi indi ndax bi ma fi indee léegi itam nag. terewuma dara lépp lu ma nekkoon ci ay ay activités yi artiste ku ne xam na ni ne artiste màggat waaye daf ma caa topp ci sama bëgg-bëgg terewuma dara mun mu daan dem ci campagne bi duma ba duma tere may dem fenn Abdou ma saana ñëw fii maa koy teeru ba léegi nag socialiste la waaw kon dañuy dañuy sant yàlla rek ndax fekke dem fekke tey rek neex a waxal nekk naa ci ba jóge ci gàtt na nag waaye ba nëgëni rek ba nëgë ni rek boo ne boo nee cercle de la jeunesse rek ñu ne Fatou Kassé kon loolu doy naa sant yàlla waaw. Adja dinaa dellusiwaat tuuti ci li nga wax sànq ne dañu téye woon sa baat téye baat boobu fan la jóge ak nan nga ko dundee woon. xam nga booba séeréer si lañ doon taseel théâtre boobu ñu ngi daloon lycée ban dañu doon nëbbu sax booba. tolloo naa yoo xam ne bu ñu demee ci dëkk kenn dañuy jël keneen naan kii mooy Fatou Kassé pour bañ ndax booba lu ne lañ ci defante booba amuñu ci xaalis fayuñu ci weer mais dafa dafa daan jaral tur bi lu ne ci àddina mais nag par kala cercle nag booba bàyyiwuñu artistes yi bu ñu mësaan dem fenn dañuy dañuy jox dañuy jox suñuy muslaay waaye nag xam nga wolof njaay nee na siiw di jàmmi borom ana Fatou Kassé ana Fatou Kassé bu ko defee ñu jël kenn ci xale yi kii mooy Fatou Kassé bu ko defee man danaa tëdd nii danañ xam ni ñi ma àndal danañ xam ni may Fatou Kassé mais ñii ñëw di ñu seet si muy ay journaliste ak ñoo xamante ni bëgg dégg nañ sama tur bëgg maa gis booba temps noonu laa mel te wallaay mosuma dem ci sëriñ ni ko defal ma lu ma may bayre ba fii nu toog waaye ba tey bayre cercle booba moo topp ba fii ma toog di wax ak yow léeg ma dem ci dëkk. ini kii mooy way kii kii moo way ini yow yaa way ko ilaal maa dem ba leen waaw sama way yëpp nag bari na mais maa dem ba da cee gën a siiw ndax maa dem ba bi ma koy woy mooy bi may door a dugg ci cercle rek presque ndax dañoo doxal tuuti rek ñi jox nu kuy maal kuy laal maa dem li ma la wax ni dañ daan gëstu benn jigéen bu ñuy wax Maram gay sama benn tante bu ñuy wax Maram gay moo nu joxoon kuy laal maa dem buñ ñu ko joxee ñu dox tuuti mas dolli ci xam nga da ngay dañ doon wax kuy laal ma dem ba sabar ga ci ndayaan dañ koy laal ndat say kuy laal sama doom di salaan joyul wet fofu rek la yemon mas mo ci dolli sama doom sama soppe dundamata joy mum lay joy ndax yalla et cetera et cetera bo muy ñenti boy yo xamanteni bi mas da ko ci duggal motax leg leg nit ñi ma waa yow lu tax doo fay droit d'auteur man len droit d'auteur mënuma ko fayu ndax du wayu ma fental sama bop dama ko daan dama daan dugal ci biir cercle ay way mais mus boba mus munuma ci dindi sama way yima ci daan dugal di ci fay droit d'auteur njangan man mako duggal kuy lal ma dem njangan da ngay dem ca tol ya dogal la sigil ndamu guer siga wata ga mbay dole yoy ci doole ko nak mbay dole mbay dole yoy mas jóob moko ci bolé mom tam doli ko ci ba way bi gudd ba mu nek bale bo xamanteni bi dal tubarkal day day day day day teggu ci yoon bul ma miin ba fàtte ma itam internet la woon koy kuy laal maa dem ba boobu itam maa ko ci dugaloon waaye eh, cercle daal toll woon na temps yoo xamante ni bii danoo bokkoon ndey bokk baay bëggante ci suñu biir tubaarkàlla mosuñu maa fay weer nag waaye buñ masaan a dem sotti nii ba ñëw booba ñun xamuñu xaalis dañuy jox ay dañ ma daan jëndal ay yére rek bu ko defee dinañ ma jënd lu ma ñeenti complet juróomi complet ma ñaw di sol waaye léegi léegi moom aar bi xaalis da ko yàq ba kenn ku nekk xamatoo looy looy woy ak looy wax ñun nag lii lañ nekk woon cercle. li ngeen doon way démb ak bërki démb ndax cercle de la jeunesse ku ko xam xam ni troupe la bu am patrimoine bu rëy patrimoine boo xam ni mën na ni du saay wala book du léegi tey bu ngeen gisee jeune génération bi di reprendre seeni morso ndax at yële ci ginnaaw sax bi Mademba Diop di dund déggoon nañ fi ay coow yu am digganteem ak euh, Youssou Ndour wala diggante El Hadj ak Viviane ci way yoo xam ni wayu cercle de la jeunesse la yéen bu ngeen gisee ñoom ñuy reprendre way yooyu nan leen di def. man de wax dëgg yàlla mosuma def dara ndax li tax mosuma def dara dañu commencé woon ci way woo fent nga yaa ko moom dañ daan ñëw rek dajale di way. dañ jaan ñew damay indi sama morom indi ma indi keneen indi ñu tek ci table bi def suñu répétition mu aw yoon kii dugal ki dugal daanañu def bu ñu bu am way bu bes buñu ñu koy répété kër iliman cham lañ ko daan yobbu commencé ko fofu di ko répété ba yalla dogal way wi aw yoon ñu door koy mëna génné génnee booba tax man bima ma Euh, ñi Viviane dama déggoon sax ñu ne xëy na man li ma dégg ci sama dégg-dégg ñu ni Mass Diop xam naa ne moom rek moo koy mën a jox kuy laal maa dem ba bu fekkee ne joxu ko koy itam xam naa ne bu dee am histoire kon Mass la koy amal mbaa cercle de la jeunesse waaye man pour man mosuma def dara wax dëgg yàlla mosuma ci am dara loo xamante ni bii mas na maa metti wala mu jaaral ma dara nit ñi nag daanañ wax sax nag yow kii daf laa war a fay droit d'auteur xam nga droit d'auteur boo ko dee fayu boo ko dee fayu da ngay da ngay am say kayit way say way dem bureau droit d'auteur joxe fa say sa ñeenti juróom-benni way yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp boobaa nag ku ko way kooku war na laa fay droit d'auteur waaye loo bokk ak ñëpp moom ah, wax dëgg yàlla mënuloo caa fay droit d'auteur noonu rek la demee woon man nag daaw moo ko amuluma ko woon benn yëg-yëg sama yaram. xëy na sax bokk leen woon ci registre bi ngeen nekk ndax ñoo musique la ñuy def yéen sabar ngeen doon def yéen a ngi woon ci art bi pur donc euh, euh, lan mooy seen différence dë dëgg la jamono soppeeku na xaalis euh, ni mu ci bokkee tey bokk ci woon démb mais bu weesoo xaalis bi lan moo leen wutale yéen ak ñoom. te la boobu ñun dañ ko def rek comme bëgg-bëgg ni ma la ko waxee woon da doon sunu dafa nekkoon ci sunu xol ñu di ko def ngir bégal doomu aadama yi fu ñu masaan dem itam. wax dëgg yàlla bu ñu fa demee tamit bu bu ñu suyee ba pare dañ daal di ñibbisi soxla wuñ ci woon dara muy man di mboolem ñi ma doon àndal di bokk nekk cercle de la jeunesse di jouer amu ci kenn koo xam ne mas nga cee wane sa bëgg-bëgg wala sa bëgg-bëgg pour honneur boo ci am yow pour yow pour man bu ma amee honneur rek xadi ju euh, xadi sooda juuf am na ko su ma ci amee bànneex kat sàmb am na ko su ma ci amee bànneex ku mel ne Jaw am na ko bu ma ci amee bànneex ku mel ne Soukeyna Cissé jabari Ponce Mbodj ñooñu booba ñun loolu moo doon suñu tiitar ku ci mel ne Nafi Nafi Ndiaye léegi moom itam mu ngi Dakar bare na ñoo xamante ni bii ñu ngi ci nekkoon ñi amoon na nañu situation dañ daan liggéey ñii di liggéey ver ñi amoon itam di liggéey seen liggéey sama maas gi nag moom amuñu ci woon benn liggéey dañ daan def bu ñu dee dem rek ñu dem ñu jox na ñu pourtant nag ñoon daan yore suñu lépp nag wax dëgg yàlla ñoon daan yore suñu lépp boo tax na ah, booba ñun yeewuñu comme nii ñu mel tey di yeewu di woy ay nit nit la fekk seen bi di la may xaalis ñun daawuñu def loolu wax dëgg yàlla. seen boo dee seetaan télévision sax da ngay mujj yow yàlla ndax bokkuñu bokkuñu dara ñun ndax dafa ci am loo xamante bi ñun lamu leen ko jaral ñun jaraluñu ko woon lanu ca bëgg itam ñun bëgguñu ko woon booba ndax booba amuñu googu yeewute boobu amuñu boobu bëgg-bëgg amuñu boobu loo xamante ni bi ñun dafa ñuy te nelaw ndax ñun boobu bu ñu naan bu ñu dencee ñaar rob wala ñetti rob rek defe nañu ne ñun tubaarkàlla ma ñàkk ñu dara ah foqale wuñu woon it nag wax dëgg yàlla loolu moo ñu wutale suñu suñu bëgg ak seen bëgg-bëgg dafa bokkul waaw moom loolu moo ñu wutale woon ak ñoom waaw pour ñëwaat tuuti ci cercle de la jeunesse de Louga cercle yàgg nañ dégg ay nit di leen euh, reprocher ne cercle ak tur bi mu am yëpp ak fi mu àgg ci àdduna bi yëpp buñ dundee ba jamonoy tey jii waroon nañ mën a teg bët wala teg loxo ci Louga loo xam ni dañu lii moom mooy mandargaal cercle de la jeunesse wante loolu amul du siège du dara buñ fa bàyyi. fi nga xam ni sax foofu lañ doon defee seen i répétition ci hangar yi ci biir gaar ba foofu na mel maar day taali loolu est-ce que du jeex seen jeexal seen xol yéen ñi nga xam ni yéen a fa nekkoon démb tax cercle àgg fi mu àgg tey. am nañ ci lu naqari mais ñun dajewuñoo loolu sax waaye li nga wax dëgg la ndax tey cercle fi mu àgg tey ni gën war a naa fekk ñu naan euh, théâtre théâtre bii de euh, place bii de cercle ko moom ñoo ko fi def. wax deug yalla waye nak dama defe boba booba dafa ak tay ñun ñi ngi daan répéter daan ñu répéter école de fi bobu ci joxna fofu la jëk jëk répéter man fofu lañ ma jëkk liñ nane audition fofu la jëk def sama audition après nak lañ fi joggé nak di dem kër Elimane Thiam di fa def répétition ñu demit salle de fête di fa def ay répétition ginnaw gi salle de fête lañ daan dem tëju def fa suñuy répétition wala ñu daan dem kër kii aañ am na benn aañ bu nekkoon Louga foofu tam daan nañ fa dem di fa def suñuy répétition siège social boo xamante ni bi itam bi may nekk cercle am nañ ko bu assuré boo xamante ni bi cercle la ko moomaloon boppam itam xaw ma ko lu dul kër ñoom Ponge Mbodj buñ masaan am anniversaire nii dañ daan def anniversaire bu at mu jot nag dañ daan def anniversaire def suñu noos ñun booba ah waaw dañ daan def suñu noos boo xamante ni bii lu ne nag lañ koy lu ne lañ lu la ñuy def tey suñuy xar togg suñuy añ jënd suñuy baaso ñun booba loolu la ñu xamoon waaye bu fekkoon ni booba tey jii xëy na cercle booba temps nii nit ñi yeewoo di di di dajale xaalis ba di ci def loo xamante ni bii tey dinañ ca teg bët booba boobu xelu cercle eggul foofu wax dëgg yàlla boobu foofu moo tax moo tax lii am tey am tey te ñu ko mujjee itam yaakaar naa ni. ci suñu tànk rek lañuy jaar ba tax na loolu waroon naa nekk bu yàgg yàgg yàgg bu yàgg xam nga man li ma la wax ni man yàgguma cercle lool lool presque booy ba ma ni ñetti at sama ñetti at laa fa am dem Sorano am fa ñaari at man sama aar foofu la li ci ëpp lépp ci ay manifestation rek laa koy defee waaw loolu la. ma fàttali rek ni cercle de la jeunesse de Louga ñi ngi ko créé. le 1er juillet 1951 mais cercle yéen gannaaw yéen dafa ay génération yu fa jaar ay goor ay jigen ñoo xamni tay ji sax nekatuñu ñi ngi bitim rew ndax euh, troupe bi day am invitation ñu voyage yi ñu des fa di daan sen doole xam nga ñoñu rek buñu cercle de la jeunesse conseil mi len di jox daal moy waxtana xalé yi ci bitim rew tay ñi yor cercle deug deug mu nekk ci seen loxo comme li ci gannaaw passé na to ci wax dara ndax mag ñi ko yoroon xeyna leg sen xel nekku ci lolu boba waye comme temps yi ñu tollu ta xalé yaangi bitim rew te nekk ancien euh, artiste cercle du ay goor mbaamuy ay jigen yakarna ni fi ñu ko war na defee sax passé nañ ko ndax jamono bi tey metti na Europe neexatul na mu neexe woon waaye bu fekkoon bi Europe di neex xale yi di commencé dem am na ku leen ku leen xelal waaye booba cercle ku ko yor rek ñu ko yor ñu nekk dañuy fàtte mag ñi fi nekkoon man mii di wax ak yow benn yoon laa mas a jote invitation cercle muy at yële passé te doomu xaadar ña ngi yore ko kii ñaŋ Sakariya Ñang yor ko te bind ma fii lettre ni ma dañuy def anniversaire cercle nga ñëw keroog sax dox nañ ma foofu dëgg yàlla diplôme yàgg na boobaak léegi lee mu am métaat ñaata at yaakaar naa ni mot na 10 ans xam nga boobu man boobu laa mës taxaw ci anniversaire bu cercle masaana tëgg bi ma bàyyee cercle ak léegi moom kese laa ci xam ku ma mës a fàttaliku téléphoné ma fii woo ma ni ma cercle dañuy def anniversaire ma di ko ci sant nag bu baax di ko ci gërëm ndax moom rek moo ci fàttaliku woon ni Fatou Kassé ngi ci Kébémer invité ma may ma dem ci guddi ga ñi booba maas jooba ngi dund booba maas keroog fa laata ak maas ñu bari ancien yu bari keroog sax dox nañ ma fa diplôme dox fa maas joob diplôme ñun ñëpp ñu sargal na fa sargal bu am maanaa waaye nag man day maa ngi leen di ñaanal yàlla rek ñi ko yore daal yal na leen yàlla kattanal jàppale leen ba changement am ci ñoom ah bu nu dee daanu nañu nag mais fan nekkoon ba tey mënuñu fa jóge ndax wolof njaay nee na mag du toxu fii nag ma nekk fii fii nag ma nekk feek samay sama njaboot tabaarkàlla ñu déggal ma kii sama goro la sama jabaru doom la kii mooy sama caat moom itam 70 la juddu xam nga kon léegi mag la ah ma nekk feek samay sët la ma nekk sama borom kër nag wax dëgg yàlla mu yaatal ma ci kër gi. yaatal boo xamante ni bii sax bu ma nekkoon suñu kër sax duma ko am man presque Louga sax xamatuma fa dara ndax euh, Kébémer boo dëkk boo fa nekkee ba am fa ñeent fukki at nekk fa ak say nawle ni ma ko waxee woon léegi nekk fa ak ñi nga dëkkal te amuloo fa benn noon amuloo fi aw ma fi xaar ma yàlla maa ngi dëpp maa ngi opposé Ablaye Wade depuis longtemps nag waaye feeñul ci sama digganteeg waa Kébémer dara yàqul sama digganteeg ñoom ci dara PDS yeek ñoom ñëpp laa jaxasool nii. sama mbootaay gi ma yore presque socialiste amu ci fii amul socialiste ñëpp ay PDS lañu waaye xamuñu ko ci man xam nañ ko sax ni man socialiste la mais nag dañ maa jox cër boo xamante bii may tam ma jox leen cër noonu laa ko dundee ci biir Kébémer wax dëgg yàlla ku nekk xam na ni itam ñoom ñëpp xam nañu ni man Abdou juuf rek laa waaw bi mu demee bàyyi nu fi tam ñu fi jàppoon ba tey ñoo ngi fi ndax wolof Njaay nee na mag di tox waaw sant yàlla nag bu baax ndax bo dekké ci dekk ba am fa lu mat ñeen fukki at nga fekk fa ño xamne fa la ñu juddoo fa ñom ñepp jox la bop da ngay sant yalla bax di len sant li dal moy ni la dundé socialiste bi ci biir Kébémer. kon aja waxtaan bi mi ngi bëgg franku lay laaj bu mujj bi rek doon euh, lan lan la laajul lo xamni ni bëggoon nga ko sanni ci ci waxtaan bi ba lañuy tejj loo xam ni am nga pour wax ko te laajuñu la ko lan la. bi ma nekkee Sorano yi dem naa ba Algérie dem naa dëkk yu bari ci ensemble instrumental traditionnel wax dëgg yàlla yàgguma fa itam waaye itam sama jaar-jaar rafet na fa ndax boobu maa ngi ñoom xaar mbay ak ñu bari laa daan àndal kon man sama jaar-jaaru noonu may sant yàlla nag bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant nag bu baax a baax a baax yéen ñi ñëw di laaj samay jaar-jaar ndax kat bi ma bàyyeeg léegi yàgg na lool te kenn mës la taxaw suma kër ni ma kaay wax ci cercle lii wala wax ci cercle laa léeg-léeg sax ma dégg ci rajo bi ñuy wax ci cercle waaye lii ma la wax ci cercle kuy laal maa dem ba moom damay dégg ñu naan diw moo ko way diw moo ko way ma bëgg leen a leeral ni leen kuy laal maa dem ba man mii maa ko jëkk a way 1957 58 sama dom, sama taaw ba léegi ma ñu bari dañ naan maa demba la tudd ndax dafa tombeeg way wi mu judd 59 mu tombeeg way wi nak ñi tuddee ko maa demba am na kubadu. xam duñ ko way ku baddu maa demba rek lañ koy wax ndax way wi ah loolu sax doy naa sant yàlla kebemeer gi sax dem may tok fii danaa toog fii deg ci benn xew sama goro ngi di Madegi. dégg ma dégg ñu naan kuy Madem way am sama doomi géwél yoo xam ne nee nañu ñoom li ñu am ci li ñuy am ci wayu maa dem ba mënuñu ko wax ba ma naa leen kon yéen da ngeen ma jox droit d'auteur kon loolu day naa sant yàlla kon euh, tabarkàlla li ngeen bëggoon lu ci des sekk xanaa da ma koy jéggal lu ma ci waxul waaye maa ngi leen xam xamal nii man ñii ñoo ma taxoon dugg cercle de la jeunesse ni ma la ko waxee Félix Yaa Sarr yàlla na yàlla wayeefal suuf ci kawam ak Abi moom ma lay wax ak sama beneen xarit ku ñuy wax Aïda Diop moom itam mu nga dëkk ca koñ ba ak ku mel ne Louis Diaw sama sama sama ñu ma dëkkaloon ca koñ ba gannaaw yàlla ñoo ma dugal ci cercle ba tey fu sama tur egg mu egg fa te dama daan def bu ñu amee ciir rek mu këpp seen leket ma di leen woyal ca jooju jamono booba yéen ñii kenn juddoogu ci booba ay xale yu tuuti booba yéen ñi juddoogu leen booba ñu ay xale yu ndaw lañu booba man amaguma jëkkër bay am doom di këpp suñu leket di woyantu ci loolu laa jóge di woy di way di way di way ba ñu ni man nañ ma yóbbu cercle li mo ma yóbbu cercle daa sa mas na ma dem dekk bu ñu wax kanen njobb ñi way ma jëlé fa lay sama lay bi ma way ba mu nekk balé di lay sama lay lay sama lay dem gore laay sama lay dem gore ma la ne lay lay ne ma ila la

waaw dama faa demoon ceet booba riit lañ ko daan woye ay riit lañ ko daan woyee booba taaxuraankat yi ñoo ko daan woy falaa jël itam aram ndee la waree mbaay tukkal séena nay naar léegi jàmmi boroom jeex xel ma dellu na gànnaar ndëri njaay ba mu bëggee dee fàllu lay la taaxuraan mbër ma dukkat may ko miil tanaan ko njool da ngay dee kon yooyu mooy woyu jëkk ya kon ma ci sant yàlla bu baax tey jii te li ci nekk rek tey eh, am na yu ma ci fàtte may may fàtte itam ku mel ne Khady Diouf itam ku bëggoon cercle la jeunesse la ko jàppale woon moom jëkkëram Adama Ndour jëkkëram sax yaakaar naa ne gaañu na léegi ak ku mel ne kat Samb kooku moom itam dégg naa ñu ni ma toxu na waaye ñooñu du ma leen fàtte toujours dafay sama sama seen kanam day nekk ci man toujours ndax ni ma daan ànd ñoom kon loolu dooy naa sant yàlla te ànd bu rafet lañ daan ànd kenn mësuloo xuloo kenn mus la werante kenn mus la werante kenn mus la xuloo góor ñi ku ci mel ne Ibou Diagne Ibrahima Ndiaye ñëw tubaarkàlla ku mel ne tubaarkàlla euh, euh, Daouda mi ngi Ndakaaru ba tey euh, bari na waaw ba tax na rek ñi ci ñi ñi dem nañu ñee fa des kon loolu doy naa sant yàlla tey ba tey sax bari na kon lii dama koy sant yàlla bu baax leen ci sant bu baax nag di leen ñaanal yàlla itam seen yoon yàlla na oyof tooy di leen li ngeen ci bëgg ba tax ngeen ñëw jël si ko ci man yàlla na leen ko yàlla defal defal ko mbooloom julit yàlla na leen ci yàlla defal ndam defal ko bépp julit man samay sët ngeen ah, wala samay doom rek wax dëgg yàlla jërëjëf kontaan naa lool ci yéen kontaan naa waaw. kontaan wante doon nañ gën a kontaanati bu fekkoon ni ñi ñuy seetaan danañ mën a déggaat tuuti ci kuy laal ma dem ba ñooñu dinañ ko déggaat ñooñu <laughs> dinañ ko déggaat xam nga li ma la ne sànq artiste du màggat ndax sama sama caat mi am na ñeent fukki at ci ren ak benn kon xam nga ni kon te mooy sama caat de kon sant yàlla rek waaye kuy laal ma dem ba moom man dafa mel ni moom moom dong laa woy ci cercle te presque moom laa mujj woy ci cercle de la jeunesse muy ben intermel rek waye dafa am bayre bayre la am ah xam nga da ngeen ma bet rek te lu la bett man la te xam nga way boko waye tam te amuloo ku laaw tam du neex ma yakane bu ngeen amé band bi rek am ngeen sama band <laughs> wax nga bëgg nga leneen bëgg nga beneen bëgg nga leneen dal. no xam xam nga bii moo dàq bànd xam nga wallaay wallaay kuy laal ma demba sabar gacca ndaaya ndees koy laal ndaat saay kuy laal sama doom je salaan jooyul weetoo sama doom sama soppe dunda mata jooyo moom lay jooy ndax yàlla fekk saw fan mu guddee nga am foo ma feete may ñaan ma demba nga day ne sa baayo yàllaay buur doom dundal boo dundee ba man liggéey feral saayra ngooñe doom waajur du fo ku di teral jàll àddina ak kuy teral waajuram sa pey bul beew bul jàmbu aqu njureel day toppe te day gaañ doom ju bon bul feew ma demba soo bëggee bi jaawe bul jooy sama nene ayo beyo beyo bul jooy sama caat me ayo beyo beyo ah non na nañu lool parce que mën naa wax sax ni liñ fi ut si woon lu ko weesu moom lañ am jërë jërëjëfati soxna si yàlla na la fi yàlla bàyyi yàggal la fi dëgëral cër yi def xéwal ci njaboot gi kontaan trop kontaan nañ trop kon euh, mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon fii tey Kébémer la capitale du Guet ñu seet si woon soxna Fatou Kassé mi nga xam ni turam. dafa and ak cercle de la jeunesse. ñu diko ñaan nak amu dara luñ ko mëna waxal lu di ko ñaanal yalla yalla bàyyi ñu ko fi meul ay teeram lepp lu mu rek yalla defal ko ko loolu lañ koy ñaan ci barka yonent bi loolu lañ koy ñaan dund ba teer ko yoonu màkk loolu lañ koy ñaan way ke mu ko sédal dara du lu baax exemple bu baax la te kay la te ko roy mu nit da nga def lu baax. doom du doomam du màgg ci kanamam toujours mi ngi lay def comme xale bi doog juddu kon kooku bu ko yaay melee di uuf ba léegi kon euh, dafa nekk yaay joo nga xam ne yaay ju mat yaay la daal ci biir ak ci bitti nag ci lu nëbbeeg lu feeñ ay anecdote yu bare mën naa ko ci indi

loolu mooy li nga xam ni moom lañ leen indiloon tey ñu ñëwoon fii ci Kébémer la capitale du guet ñu seet si woon Adja Fat Kassé la voix d'or du Ndiambour comme ni ko doy Alassane Ndiaye Alou doon waxee gannaaw moom déglu ngeen euh, doomam di goroom Ndeye Gueye ak euh, Saliou Gueye mi nga xam ni mooy caatam ñu àndoon ci nag ak euh, suñu caméraman réalisateur Mbacke Mbodj di am mbégte bu rëy àndoon ak yéen partager ak yéen moment bu intense bu am solo bi di leen jox ndaje rek beneen yoon incha